وقلب Koso Aslo gane àdduna fa Darou Mouhty ci mille neuf cent trente cinq waajuram tuddee ko euh, Cheikh Ibra Faty mooy borom Koso bi ma amee at Cheikh Ibra Faty dalal ko alxuraan fa Darou Mouhty door ko jox Serigne Soose Ndiaye ab diir ñu yóbbu ko nguñu rañaan fa Serigne Mor Serigne Mor ab fa ab ñu yóbbu ko Medina Sill fa sëriñ Mbay Sill ginnaaw ba ñu yóbbu ko yóbbu nañu ko Ali Sëmbaldu ca sëñ Ceerno Jóob ah, Sëmbaldu ba mu fa jógee la dem Daarul Manaan fa sëriñ Abdourahman Mbakke foofu la noppee ci njàngum alxuraanam ñu jóge fa dem Koso fa sëriñ Mahamadan jàngi fa xam-xam bi mu noppee ba dellu si fa waajuram dafa daal di jaay ñu yoreel ko jënde ko ak taalibe daal di ndax ak taalibe du wér mukk te borom jébuluwul mu jaayante jaayante bi nga xam ne ñu ngi ko doone woon ci la ci lislaam soso woon ci la tarixul murid euh, tarbiya ak tarixa tarbiya Sëriñ Tuuba sosu ko da ko saf ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم القرآن دلنا وحنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة سنتبا وحنا شي بن خسينا كونوا محبين لوجه الله seyxan yaqudukum anil manaahi kon wajurum noo noo noo noo noonu noonu la sëriñ ko noonu la mbiram doxee bi mu dellu si itam nag nekk jàmbaar joo xam ne musul noppalu wenn wen waxtu ngir faj soxla yi doomu yi nit moom dañuy xool ab juddoom ak jaar jaaram ak jikkoom akub liggéeyam te yooyu boo ci seet suñ ko soog mat na ko sakk ndax judd ba tubaarkàlla mat na si mooy jur doon na judd mat te wàllu way na nga jëkk ba suñ tubaa ñëwagut tam ñu baax la ñoo xam ne liggéey ak jaamu yàlla ak jàng rek lañ xamal ndax suñ mën a bal ñoo xam ne ñoom seen way fañ bokk lañ xam mooy liggéey jaamu yàlla moo tax seen kosatu ñooñu la bokk ñu ci waaga suñ ma doo bal ñaareel moom ci boppam mu am jikkoy boppam ndax la mën a jur eh, lay ëpp solo ci lañ lay war a xool caw ak la ca ñee wala ci ndaw jikko lay doon ndax jikko ci la yoon ci la ko sa moom nit la koo xamante bi si ma doo balla moo ko sàkkul boppam doxale woon ko diggam ak njabootam muy nit ku am njariñ ku amuk taalibe ku am jomb ku woyof sëñ koso dafa amoon jom ba noppi nag woyof ndax sëñ koso euh, dafa xamal lim am te am loo xamul ñàkk ko te xam ko ndax boo ko ñàkkee te xamoo ko boo ko wutee ba am ko danga ko téye euh, sëñ ko koso dégg naa mu doon wax kàddu yoo xam ni jom a koy wax jàmbaar koy wax ku baax a koy wax nangu naa ca làmmiñam mu ne daarul muuti lu fi waaye woote dinaa wuy bu dee luy defar Daaru Muxti kenn duma ma man mhm. bu dee lu koy yàq ma gàntu gàntu wàll sax woyofu xol woyofu xol nag teewut amu fit ndax loolu suñ tubaab wax jës mu ne saaba yi ñoo nekkoon ñu lewet waaye ñoo nekkoon ñu dëgër ci ci yéefar yi lewetaay bi ñu lewetul ñëpp jëmuwuñ ko woon yéefar sëñ ko sëriñ noon la mel lawetaay bi muy lawet lépp teewul ku amoon fulla la ku amoon fit la ku amoon dignité la ku fonkoon ko sëñ Modaw Balla Balla man nag bëgg sëñ Tuubaa ko def ku ne rek yaa may sëñ ko sa de gannaaw yàlla ko sañcee ngeer fàkk la lañ ko tuddee woon sëñ Modaw Balla na yow danga fay dem muy ma nga fa demee mu ne ma ne yow Daaru Rahmaan nga njëkk a nekk waaye dama lay yóbbu ngeer fàkk ndax damaa faa ga a yóbbu koso te koso mi ku ma gërëm la damaa bëgg nga dem jàppale ko fa bañ toojee ba noppi ginnaaw bi ma woo fa soxna moom sëñ Tuubaa nekkoon na nga ñëw gannaaw sa sa ngeer fàkk ñu ngi ko sanc te yóbbu ma foon nga ñëw ñu la fay bayal mm. ba soxna moom ñëwee mu ne arén jañ ko fa bayal nangu lool mu ne ñaan naa ci dëkk sëñ bi dëkk bi gox ma daal ku fi dugg rek ku fi dugg rek yàlla nga dugg àjjana hmm. ko sarsaara bi sëñ bi nekkee gànnaar sëñ Bamba nee na inna lasiina ilaa sarsaara ilaa sarsaara ilaa sarsaara xat xasadu siyaarati faaraxu daareni aw saara inna lasiina إلى ثرثار قد قصدوا سارة فارق دارين أو دارا gis naa ay jikko yoo xam ne ci sëriñ mi sëriñ Kosso Astou Lo c'est un homme multidimensionnel daan na ànd sama borom kër ñuy rëbbali sëñ mu daaw Balla dañuy def ay kilomètres ay kilomètres mu jigi am na bés boo xam ne sax dañoo réer ndax teral waajuram rek. moom booba dafa boole yu baree bari tax dafa boole njariñ ak am xorom suñ ko sa daa amoon njariñ am xorom ndax nit la koo xam ne fu mu masaa nekk ñëpp di ree euh, teg booy dem bég booy dem mu jox la loo xam ne nii da nga yóbbaale mbégte mm. jataay bi nga toog itam ba ba nga fiy jóge da ngay ree ngir sëñ koso sëñ koso dafay boroomu aw fit dafa dëgëroon aw fit ba noppi itam di di jàmbaar ba noppi itam di nit ku woyof ba noppi di nit ku am njariñ di nit koo xam ne daal man naa ne euh, bu fekkonte ne kuñ naan nangam mooy mëccam mooy xam ajo aajoy nit ba ba faj ko saa boo ñëwee da lay déglu bu xamee sa ajo fii ak fajut aajo jooju day mel na dootul am jàmm ci teral la wala mu dimbale la ci ci ci lépp nag. benn anecdote boo xam ne moom euh, pour pour wax la grandeur u Serigne Kosso dafa miinoon directeur général bi miin administrateur yi léegi ci directeur généraux yi mu am kenn koo xam ne dafa doon jógee Sénégal di ñibbi définitivement mu ne du def euh, réception pot de départ am tant que Serigne Kosso teewul ñu daal di def invitation bi daal di ma ko jox ma daal di ko yóbbu amitié ci këram xanaa bi ma ko yóbbu bëgg néeg bi joxu ko ko. après nag léegi réception bi commencé gan yëpp ministre yeeg ñëpp a ngi taxaw ñu ne na xew bi du door tant que ana sëriñ bi sata ana sëriñ bi parce que yow yow la ñu jox invitation bi ne la nga yóbbu ko après léegi ma leen invitation bi de yóbbu naa ko ah kay départ ni moom du wax te fête bi du door tant que sëriñam teewul léegi nag ma am problème ñu indil ma <laughs> problème boo xam ne après nag léegi ma obligé euh, kiñ ciy wax racine si xam sëriñ bi xam na ko bu baax ñu daal di ànd dem këram bi ma demee ma fekk ko mu occupé may mais may ñëw rek fëgg buntam toppatoowu ñu ndax dañu occupé pour te diir yaatuwaayam ak ak humilité bi mu amoon ci nit xam nga sëriñ soo ñëwee yaa ngi taxaw xaar ñu annoncé la nga wax mais dama ñëw rek forcé fëgg bunt bi dañu ko sëriñ bi sama liggéey dinaa ko perte tey rek mu ne ba jàmm ma expliqué ko mu daal di woo bëkk néeg yëpp rangale leen daal ni koo ci joxoon invitation ma ne ko kii mu daal ni ko yow ana carte ba ñu génne carte bi mu ne waa léegi soxna Cissé lu ciy pexe nag ma ne ko xanaa sëriñ bi nga jóg solo rek topp ma fii mu nekk moom tey daal man maay sëriñ bi yow yaay taalibe bi mais ñëpp gan ya fa nekkoon day saan toog di ree li may wax rek ci woye faayam mu daal di sëriñ ko sa asloo moom Cheikh Mamadou Awa Balla doonoon jàmbaar joo xamante ni ku daan dimbale doomu aadama yi la loolu nag kenn ku ci nekk man nga cee teg sa bët sëriñ Koso ñi nga xamante ni am nañu kayitu payoor muy bulletin de salaire nekk ci fonction publique te moo leen fa yóbbu kenn xamul nu mu toll ay doomu aadamaa ngi fi yooyu tey ñi ngi jàngale walla ñuy liggéey di fayu te ba ñuy jàng sëriñ ko soos loo moo leen wutal bourse ñu dem bitim réew ngir jàng yi kenn xamul nu mu toll ci senegal kon euh, sëriñ ko Koso dafa nekkoon ngir di dimbali doomu aadama yi ndax boo xoolee li mu dugal fonction publique lu ñu sant Mbàkke dafa dugal déedéet du ay bokkam euh, ba ci Mbay Njaay Fawzeyni mi ko daan yëkkatil xaside yi euh, mu ngi woon pooru Ndakaaru fa la doon liggéeyee te moo ko fa yóbbu woon li mu ñu gën a jàppale mooy suñu vie professionnelle suñu vie professionnelle booba man maa ngi liggéeyee Bolloré Hmm? man maa ngi tudd Sata Sata Cissé dëkk dëkk jëppal ñu yàgg ak moom suñu vie professionnelle bu ma ci tënk tuuti rek ci maqaamam ak ak am dooleem doon am problème jàkkanteel ak dokeer yi te mu nekk koo xam ne dokeer yi dañ ko déglu déglu déglu woon ah ba nga xam ne buñ daan am dañ daan jékki-jékki gaal yi arrêté da ngay gis gaal entier arrêté il suffit ñu jël téléphone woo ko rek mu réglé ko ci saa si ba mujj gi ko Koso dem ba tubaab yi ci kër gi yëpp ay xaritam lañu ñëpp la xam un ñu sol ñu ngi sarsara mi ngi ganale ñu ngi recevoir ba mujj gi tubaab yëpp xaw nañu jébbalu ko ci wax mu ne la murit la ndax ndax ndax ndax jëmmam ndax jëmmam loolu moom mu nekk loo xam ne daf ma marqué woon du du ma ko fàtte. mu taxawoon ngir li nga xamante ni moo doon cërub doomu aadama yi te war a bàyyi ko ci gouvernement bi. ñu man caa jot kon jàmbaar la woon joo xamante ni dafa làqoon ngërëmul waajuram sëñ mu daw balla soo demee ci euh, marché sëñ mu daw balla bi ba mu koy jaale njaboot gi maa ngiy wax naan cëy koso astuloo ko ñàkk waayam day xaritam di ab sëriñ di baayam baayam da koo gërëm ba xëy yebal ko mu toog fa sar saara lu jot mu def ko kon moom dafa làqoon ngërëmul Cheikh Mahamad Awa Balla fi nga xamante ni li tubaab di wax rendre hommage hmm, danaa ko ko def ndax dafa am jëf ju rëy ju mu jëfoon yoo xamante ni bis bii ñu toog tey jii benn fan ci weeru mai la am juróom fukki at ak juróom jëf ja mooy ba mu nee borom Daaru Muxti li mu bëggoon ci dëkk bi jumaa ci des woo njabootu borom Daaru Muxti gi ak taalibe yi ñu daje mu ni leen jumaa laa bëgg a defal borom Daaru Muxti lu waay indi nag ma defal la ko ci waaye bu ma doon dem bay ànd ak sama njaboot gi di liggéeyaani ci waaxum Ndakaaru di ko def ci jumaa ci danaa ko def. non non non non non noonu la Serigne Kosso noonu la mbiram doxee mu dellu si nag nekk jàmbaar boo xam ne musul noppalu wenn wenn waxtu ngir faj yi te it amutoon frontière ci kenn ak koo mën a doon foo jógee rek. boo dikkee dana la yaatal laaj la sa soxla ak noo mën a demee ak foo mën a jógee lu soxla sa rëy rëy mën a la toogal loola faju na ubbi kanamam ubbi la xolam ba nga ñeme ko soxla soosu benn mu téléphoné loola dal di faju wala mu sol aw dàllam ngir faj soxla sa su jógee nag ba muy dem ba muy jóg du xam sax fan lay faje soxla sax waaye ki mu ki muy liggéeyal muy Cheikh Ibrahima Fati ak Serigne Touba bu jógee rek ñu daal ko ubbil buntu ba soxla sa daal di faju fa saasa am na ci benn xisa buñ ci nettali ci nga xam ne ci li nga raxee woon ku ñu wax Serigne Mor Diaw yàlla yàlla loo ko yokk leeram fa mu nekk dafa amoon benn procès ci benn pour bu mu ubbi fu ne dem na fa nag di ci wut ndimbal ba mu ànd ak sama xalifa Serigne Moustapha Ndiaye ñëw Dakar fekk nu fa ñu ñuy wax ko sëñ Koso sëñ Koso ne sëñ Moustapha man ngeen a dellu man ngaa dellu yow bàyyi fi Mor ak Cheikh ñu toog ñaari fan ba ko ñetteel mu mu woo ma ne ma nañ dem. bu ñu demee bi ci bi ci dëkk ba mu soxla ci foofu ci bo boori bo boori place de l'indépendance. juróom woowu di sëñ Moustapha Balla noonu la ko jege woon dafa taxawoon taxawaayu jëwriñ ci moom. jege ko lool euh, di ko liggéeyal ba Serigne Modou xam ko ci loolu ba bëgg ko ci mbëggal goo xam ne seen diggante ak cofeel am na ci goo xam ne boo xoolee notaali sëñ mu Awa baal yi ci ëpp dangay gis seen sëñ ko sa taxaw ci wetam euh, loolu jege waajuram lay tekki mu liggéeyal ko nag ba ba sëriñ bi gërëm ko te liggéey yooyu am na jamono yoo xam ne Daarul Muxti gi euh, gënoon naa jafe gënoon naa metti waaye téewut dafa laxsaay woon nekk ci wetu waajuram di ko jàppale ci liggéey borom daaru bi nga xam ne doon na ko liggéeyal ci ndigalu Sëñ Tuubaa mm-hmm. lu mel ne ko ne xam ne ne daaru yàgg nañu am jafe-jafe ndox mm-hmm. sëñ koso daana wut ay otoy ndox ca ndakaaru di ko indi fi daaru ñiy rootal dëkk bi ci ay forage yu daan paan léeg-léeg mu xaw a am ay tag-tag mu taxaw ci tem ak lu mel na jumaa ji jumaa ji sëñ koso uh, njàmbaar gu na def na ko ci mm-hmm. pexe yu na def na ko ci liggéey bu ne wéttali na ci sëriñ Mouhamadou Awa ba jumaa ji taxaw sëñ ne bii moom képp koo xamante ni bi ak dundam fekk nekkoon nga ak moom moom boo ko xasee miin duutoo mën a jóge ci moom ndax yii ma la wax la boole boole njariñ ak xorom dafa amoon njariñ lool lool lool lool ba ëppale ko ñu baree bari bari xorom lool lool ba ëppale ko ñu baree bari te bëriwul lu muy mere nit ndax bu la mere woon dong tey boo ko mere woon dong tey jii boo demee mu woo neexal la te moom mi nga xamante ni moo lay woo la neexal yow yaa ko waroon a neexal pour jubóog moom sëriñ ndax loolu fi mu koy xamee mooy njabootam bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ci ëpp wala ñu ci bëri moo leen mat teew jàpp sëriñ képp koo xam ne sëriñ moo dula jaboot rek nga bokk ci njabootam waa këram rek ndax laa jàpp nag sëriñ ci jëflanteem yow loo tuut tuut rek ñu jëflanteeg jëflanteeg nit ku jëflanteeg kilifaam te moom moo lay def loolu xam nga jikko ju baax a baax ñaareel ba it moom ku xër la woon maanaam defantu tuuti moom bokkut ci jikkoom lépp lu mos jëf jëf ja gën a mat lay set te loolu ci ci ci lu baax la bokk ci jikko ju baax la bokk ndax nit ki buy def day war a seet la gën a baax la gën a rafet loolu nga nga tànn ko moom nag noonu la doon def moom lu mataat jëf def day day sànn day seet fa mu gën a baaxe fa mu gën a mate fu mu gën a rafete mu jëfe foofu te itam dafa jàppoon boppam ne moom fu mu taxaw rek taxawoon na fa njabootu mu daa bale gépp moom sëñ Modou Awa Balla nag ak njàmbaaram daf ko donn ci borom Darou Mouhty ndax nit ki boo nee jàmbaar la war ngaa wax nit ñi lu tax nga ni jàmbaar la boo nee borom Darou Mouhty jàmbaar la ñu ni la lu tax nga wax ko nga di leen moo wuutu woon jàmbaar ja ki sos yoonu murit tubaab yi ni ko du fi amee jël ko yóbbu ko borom daaru muuti wuutu ko ci yoon wi ak njaboot gi taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ba bi mu dellusee ni ko ceer na ndax bu fekkoonte ni yaa dem ma des fii dinaa ko man nii nga ko mane borom daaru muuti bu ko manee sëriñ tuubaa tax waaye loola aw tagg la xamal ko ni ko li ma la bataleeloon sàmm nga ko saytu nga ko ba ma dellusi moo tax Sëriñ Tuubaa wax ko loola ndax lu nekk ci borom daaru muuti moom moo ko ci def kon ku la ni lu tax nga ni borom daaru muuti jàmbaar la nga ne ko dafa li mu wutu woon Sëriñ Tuubaa waaye sëñ Modu Balla itam boo jàmbaar la ñun la lu tax nga di ko la koy laaj wóotu gi mu wóotu waajuram borom Darou Mouhty ci jamono ju xat pendant la deuxième guerre mondiale 39 45 mu wóotu boroom Darou Mouhty gannaaw bi borom Darou Mouhty defee fanweeri at ak benn ci dëkk bi ba muy wàcc ab liggéey booba. ndox jafe na fi lool demoon nañu ba ñu jàpp ni ndox mënatul am dara lu waaye ni nga xamante ni bii boroom daaru muuti bi mu demee sëñ moo daaw balla manoon na ni daaru muuti rek doy na ma naa ci yem du génn ndax noonu la def déedéet bi borom daaru muuti demee bañ teg ci ñaari at 1945 la dem ngor nguddu péya ñi nga xamante ni tey mooy daaru rahmaanu sëñ Fallu Asijee tënk naa ko ci ay woy ci marché yëpp sëñ mu daw la boo demee ci marché ba maa ngay wax naan ma ñëw limal la li mu gor ciy daara tarbiya fay murit kilee xam daara rahman la njëkk a gor gannaaw baayam ba muy daaru rahman yebal fa fàllu doom ju fonk baay ba fekkoon na moodu du gor ca dunduk baay ba fañ naa karaaciil ba tabax faak taar ba borom ma doo balla di gor karaaciil booba daaroo ngi fi moo tax ma ni fekkoon na moo du gor ca dunduk baay ba fañ naa karaaciil bas tabax faak taar ba wasilatu roboox la moodu gorlu far soppi tura jële góor a farlu tudde ko sarsaara yebal fa doom ja muy ko su astuloo ki lee di waaja tabax na kër ga ba mu daj gasteen ba yal na ko maam ja ci barke baay dafa jàppoon boppam ambassadeur Daaru Muxti waxuma la ambassadeur ko a baal waaye dafa jàppoon boppam ambassadeur Daaru Muxti ci boppam ndax ci waxam ak ci jëfum ci démarche bu muy def ak yëpp da ngay ba fu dem ba jóge fa boo fa jaaree ñu ne la moo fi ñëwoon da daal di xam ne doo doo doo tiit mukk ne kii kat ñëw na fi ndax moo fa jógee moo fa ñëwee naa tiit dina wax na fi lu ma doon waxoon def la ko. foo dégg dem na fa rek boo ko déggee da nga sa xel lay daal ci ne moom boo fa demee lam fay wax lam fay def lu mat lay doon lu rafet lay doon. loolu noonu moo ci nangoo dimbali te dimbali gi mu daan dimbali xoolu ci woon ku bokk ci moom wala ku bokk ci feneen li ci xool xool rek mooy koo xam daf laa war a dimbali te man laa dimbali mun la dimbali te dimbali bi gën a jafe mooy dimbali nit sa doole ndax moom daraan yàlla da ko mayoon ndax suñ ko li mu mën ci liggéeyam li ko yàlla mayoon ci mën a lijjanti bare bare bare bare loo xam ne yàlla ko jagle ndax jagle kenn koy da ngay am jagle te loolu da koo da koo doon wa shukri liman kulli bi jara law ridan duna illa sarsara لو سنائي وردواني بلا أرقتي مسقعد لي من بني ديمان أنجارا sëñ ko sayit amoon na may gu ko sama borom beraloon man gis naa ba tàyyi kilifa jéem ba tàyyi mënu ko sëñ ko sa dem def ko waaye mosuma gis lu mu jéem ba tële keneen dem def ko Mm-hmm. kon loolu suñu daabal da ko bere lan loxo mm-hmm. doxalinam moom ndax dégg wala fi naan koo xamut noo ko def nam la defa tax maanaam ni doon doxaleek ñoom ak teraanga ji mu leen di ji mooy dem ba jàpp leen ba nga xam ne léegi lu mu leen wax day mel ni sañ ñu ko bañ loolu la woon waaye du leneen du walaaya du leneen waaye nit ki bu fekkee da ngaa rafet jikko nit koo gis jikko teraanga def ak moom teraanga joo xam ne da koy yéem day tax na moom day mu jàgg bu dees gor da nga koy moom ba loo ko def loo lu mu ci ko noonu loolu la def ci fan ci ñëpp nag ci administration bi ci wet goo xool rek aman na aman na fa déggu si foo gis rek lan lu mënta lijjanti daanaka te waxtu woo ñëwee muy guddi muy di ko loo dara fi saasa lay jóg dana la laaj ba xam la la tax a jóg nam demee lépp ba xam ba xam xam ko doog ca jóg def ci ay démarche te foo ko waxee soxla rek na koo xam ne daal daal yëkkat téléphone am wax ak moom dee koo xam ne da koy wax yebal la ca wala da koy woolu mu woolu wala day demal ci boppam mu jóg ba tax na lépp lu ma saa bëgg liggéeyante rek yàlla da ko defal tawfeex nekkam fi ci liggéey bii nga xam ne bokk na ci liggéey yi ko sëriñ bi daan liggéeyloo muy ndogu lii mu ko toggloo woon sëriñ Koso togg na ko ay at te at mu ci ne bu ñëwee da ngay defe ne bu déwénee bu bu ñëwaatee lii mu mënoon daaw du ko mën waaye day mel ne day gën di yokk taraanga ju indil na ko sëriñ mu daw Balla ba sëriñ mu daw Balla wàcc ab liggéeyam noonu la jaayante ak Cheikh Mamadou Moustapha mi yàlla na fi yàgg te wér taxaw taxawaayu moom moom sëñ Moustapha xoolewu ko ku mbokkal bàyyi sëñ mu daw Balla koy xoole fa mu tegoon sëñ mu daw Balla rek la ko teg loolu nag Euh, di taxawaay bu kawe boo xam ne lépp ci positif la ko teg ak yitte ak liggéeyal baayam ak taxaw teem ndax man daanaa dégg mu ne euh, maak Serigne Moustapha Serigne Mouhamadou Awa bala def ñoo mos a woo bañ ñëw mun ñu yéen ñaar damaa bëgg ngeen ngeen nekk benn ndax bu ngeen nekkee benn rek sama kër euh, waxtu wu ne ak yokkute rek moo ci am. daan na ko loola li tax ma bëgg ko ci yéen mooy seen ñaari waajur ya ba ñu nekkee ca yabal daan daan daan fa daan ma fa liggéeyal dañoo àndoon dañoo dañoo àndoon nekk benn tey dañu ñoom ñaar seen ñaari njël yi dañ ko boole woon mu nekk benn loolu nag ci nekkuk sëriñ Mouhamadou Awa Balla ak ginnaaw sëriñ bi ku ne gis na Cheikh Mouhamadou Moustapha digganteem ak ak ak ak sëriñ Koso ni mu rattaxe woon ak ni mu rafete woon ak ak ak ak ak ni ko sëriñ Koso taarale da xam ne lii euh, jëfe nañ digalul seen waajur waaye xam nañ ne itam lëgg yëpp ay waajur mi ngi ci ci taxawaay boo xam ne àndoon nañ ko ñoom ñaar mu mu doonoon ko jàppale sëriñ bi di ko liggéeyal ci lépp. tabale wu ndax lu tax nga xam ne tabale li mu daan fere ndax man bi may jàng arab soo daan ñëw daan dal këram ci Sikaab booba lay doog a kër gi daanaka waaye kër gi xam naa ne booba li ñuy xëy di ko sóor ci ceeb wër ma ne ëpp ëpp na genn wàll bëri ndax amoon na ay toggat yoo xam ne spécial leen jël ñu leen fay. ñu ngi togg di togg andi togg la waxtu bi te dañuy togg parking bi nga xam ne moom ci buntu kër gi boo mosaa ñëw da ngay defoon trafic xam waxtu bi dañuy fex dell parking bi muy guddi muy bëccëg te ñooñu ñëpp amu ci kenn ku mu woon ku ci nekk yaa gis ci moom loo xam ne sa njëriñ la wala nga gis ci moom loo xam ne loo bëgg la wala nga kon buñ ne sëñ Kosso Astou Lo jàmbaar la di lu tax nga di sëñ Kosso Astou Lo jàmbaar la. nga ni daf koo donn ci waajuram sëriñ mu daaw balla ndax euh, ngir melal sëriñ ko sa asuloo loolu ma wax ni sëriñ Tuubaa bi mu naa borom daaru muuti ndax su fekkonte ni yaa dem ma des fi dinaa ko mane nii borom daaru muuti bu ko manee sëriñ Tuubaa tax waaye njàmbaarug sëriñ ko sa asuloo ak li mu doon jëf ci doomu aadama yi loola laq ngërëmul sëñ Modou Awa Balla moo ko waral ndax sëñ Modou damay bañ a guddal waaye jëf na fi jëf joo xamante ni bii tubaab yi nga xamante ni ñoo jëloon sëriñ bi yóbbu ko génne ko senegal Sénégal borom daarul moxti waajuram wootu sëriñ bi tubaab yi di ko jéemal sottiwut ñoom tubaab yooyu tegoon nañu sëñ Modaw Balla foo xamante ni bii tey su ko jot gi maye woon euh, dinaa ko indi ci loo xamante ni ci ay document laa ko teg journal yoo xamante ni tubaab yi ñoo ko moomoon journal bu ñu doon wax Paris Dakar ak journal officiel bi nga xamante ni lu monseigneur gouvernement France ci journal boobu lay génn borom Daaru Muxti président de la république bu France décoré na ko le 11 mars 1938 décoration ba moog sëñ Modou Moustapha boo demee ci journal officiel bi génnoon ci la 11 mars 1938 da nga ko ci fekk ñu décoré ko ci ordre national du mérite agricole ki dàqoon a béy ci Sénégal loolee décoration boobe tubaab yi takkal nañ ko sëñ Modaw Balla keroog bañ ko koy takkal moom ak mbokkam Cheikh Mahamadul ñoom lañu ñu décoré ndoo ci décoration boobu nga xamante ni ci journal officiel ba ña ngay wax ni sëriñ Modaw Balla moo doon président wu amicale des des agriculteurs di Njàmbur maanaam moom moo jiite woon Euh, béykat yi nekkoon euh, ci njàmbur. lépp lu mu si xew dana lu mu ci mën lu mu dina ko def kenn ku ne mën ngaa taxaw ne man nangam njëriñ na ma ko te ëpp de mun ñoo taxaw ne njëriñ nañ ko dara.